Amis internautes de Dendal TV, bonsoir, bienvenue. Comme vous le savez toujours, Dendal TV d'Alain di jox luy ton ak actualité. Alors aujourd'hui nous sommes dimanche 19 novembre 2023 li gën a moy euh, euh, combat bi nga mon natie à na ci à euh, ak Lac de guerre 2 ginnaaw bu Lac de guerre 2 Amé victoire si kaw site avant combat bi nag gis naan ki nga xamante ni moo di Reug Reug encourager site bon sens mais également Modou Lo Daldi, na daal di jox Siteu li nga di ay bon am bonne sens di won suite mom ah, mi ngi ci ginnawam mais ki nga xamanteni modi Lac de Guiers 2 gis nan ken ñewut dal di ko ah, ah, wonni mi ci mbeur yu magi alors ñu gis yalla def ni Lac de guerre modaldi, dal di am victoire si kaw site ginnaw ay avertissement yi nga xamne site mais je vous rappelle également Lac de guerre de yobuna trois fois Siteu site fallait fi nga xamanteni modi ardo alors combat bi neexoon na dire na 20 minutes yi nga xamne site ak nga xamanteni moo di euh, Lac de Guiers 2 ñu ngi bëre bëre bu neex tey euh, fii ci euh, Sénégal dimanche bi nga xam ne Siteu moo ci waroon jaxarloo ak Lac de Guiers 2 Lac de Guiers 2 am na victoire ci kaw Siteu